bu ñu demee ba élection législative. mu mën a ne man mu def cumul de fonction. man daal kenn rek laa jàpp ne cumul de fonction bi valable na et se justifie mooy bu Ousmane Sonko. Mhm. parce que xam nañ que ne coalition Yewwi Askan Wi boo si dindee Ousmane Sonko et Khalifa Sall mi nga xam ne il n'est pas dans la dans la compétition. Mhm. kan moo si mën a am de le leadership. de de de Sonko. kooku mën mën nañ ko ko baal. et puis on ne peut pas lui reprocher aussi d' le maire de Ziguinchor et en en en même temps être le leader de la coalition. Mm-hmm. mais da ngay gis yeneen yoo xam ne par exemple nag leur investiture. wala non investiture warul woon tax ñu génn di ruer dans les brancards di bind ay communiqué. a surprendre man personnellement. man cas de Moustapha Guirassi. Euh, Moustapha Guirassi oui son cas m'a un peu surpris mais surtout le cas du maire de de de Grand Yoff par exemple. Euh, Mbadou Diop je pense que aussi. là je crois que moo. Adama oui oui Adama mais je pense que aussi. dala bett yow it il a tout à fait raison ma mu mm. parce que député la président de parti la. il s'est investi à Yewwi Askan Wi. xam nga kaas bi nga xamante ne nit ñi ñoo ngi koy kaas lan moo ko waral loolu mooy question bu ñu war a poser. lan moo ko waral que tey ji nii boo xoolee liste bi nu mu déroulé woo investiture yi ni mu xamante ne si noonu la amee ñun dañ koy ñaw lañ koy fustiger parce que tey jii mënoo comprendre ku mel ni Moussa Tine bokk taxaw Sénégal élection locale ñu investir docteur Babacar Diop à Thiès mu créer liste parallèle d'accord ci dem xeex docteur Babacar jóob tey kook nga ñëw teg ko ci kanamu nit injustice mënut a weesu loolu dañuy waxante dëgg rek. waaw boobu boobu moom ànd naa si ak yow. may mën a Bousso barki Dembo Ndiaye le rejoindre Yewwi Askan Wi. récemment locale yi xeexul ak ñun lu mu dee dee Ndeye Fatou Ndiaye Blondé ñaata conférence de presse la def ñaata sortie la def ñaata xeex la mën a biir Yewwi Askan lan mooy ndey ñuy jël may mën a Bousso di ko teg si kaw Ndeye Fatou Ndiaye te barki démb la rejoindre. mais est-ce que duñu xool aussi mais attends liste bi li ma la wax nii xanaa kon liste yi kon du euh, woon luñ waxtaanee dañoo dañoo li ma la wax nii ko ngeen gis ko ci presse ñi def liste yi mënuñu ko dindi parce que Moussa Tine mënoo créer sa liste xeex yeewu askan wi si local yi ñu boole si vingt premières yi mais mënul Bousso bi nga xamante ni si barki démb la dugg yeewu askan wi amul benn xeex bu mu fa mënee ñëw teg ko si kaw. jege trop ndey ndey Fatou Ndiaye bu la ndee. mais est-ce que copinage. li nga xamante ni si moom nañ xeex di ko xasee waa benn boo ko yaakaar mais wax dëgg neex yàlla loolu la ñu def. mais investissement bi doon demee Adama Sarr nan la doon demee exactement. pour que ñu mën a xam responsabilité yi ngay wax nii. ñu xam fan la situé. Euh, l'unique responsable celui a trahi tout le monde c'est Khalifa Ababacar Sall. parce que je le dis maanaam lu je le dis je le dis je le répète mhm. président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi président de Taxawu Sénégal a trahi. tout le monde et les responsables de Yewwi Askan Wi ñoom ñëpp ils ont été irresponsables baal ma parce que munoo ñëw ci investiture liste national nga jël benn nit mi Khalifa Sall ne ko dama defal liste nationale bi non da nga bëgg mais Khalifa Sall man li ma comprendre waroon na monsieur le maire li ma comprendre waaw mooy par exemple euh, yaakaar naa ne Khalifa Ababacar Sall euh, tëjuwul si biir néeg loolu la def moo tax ma ni la. Khalifa Sall a trahi avec avec au moins avec l'aval des autres. Euh, moo tax ma ne les autres leaders. moo tax ma ni la Khalifa Sall a trahi tout le monde les autres leaders ont été irresponsables. li nga wax ni moo tax ma wax loolu. non non parce que leader yëpp mënuñu ñëw. Ah ah. askan wi nekk seen ginnaaw ñoom ay partisans ñu jël liste ne Khalifa Sall demal nga defar ko parce que wóolu nañ la parce que tu es parce que am nga probité et cetera et cetera et cetera mais nous sommes en politique. mais bañ ko defee dafa consensus aussi. noonu dañu toog ñu waxtaan ñëpp ku nekk jox sa xalaat am ñu jël xalaat dañu ñu waxtaan mënuñu trouver consensus ñu ne xalifa sàll comme te yow munoo dem élection wóolu nañ la am nañ ci yaakaar yaakaar nañ ne buñ la joxee liste yi di nga ko defar ba mu baax leader yëpp d'accord si ne waaw ñu jox ko Khalifa Sall mu dem tëju def lu ko neex. ñàkk consensus moo dugal Moussa Tine. kon ginnaaw bi ñàkkee consensus moo dugal moo dugal nga baal ma moo dugal Saliou Sarr moo dugal Birane Kane Ndiaye moo dugal xaw ma Aminata Mbaye ñooñu cinq ñooñu ñëpp ma lim ñoo ngi si quinze xaw ma vingt premières personnes yi taxawu Sénégal lañ bokk moo tax ma ne Khalifa Sall a trahi tout le monde te loolu nag nañ leen koy wax. Cheikh Tidiane Dièye vingt huitième position loolu. xam nga Cheikh Tidiane Dièye tey jii boo waxee conférence des leaders. Mhm. Ousmane Sonko Khalifa Sall Malick Gakou Cheikh Tidiane Dièye Déthié Fall euh, Habib Sy Aïda Mbodj mooy huit personnes yi nga xamante ne ñoo ngank bopp bi tey jii kenn mënu la wax lan moo tax Cheikh Tidiane Dièye dem vingt huitième position. ba Déthié Fall ñëwee Cheikh Tidiane moo waroon ñëw mais Khalifa Sall lu ko neex la def parce que waroo jël Moussa Tine di ko dugal ci kaw te Moussa Tine créé liste parallèle xeex coalition Yewwi Askan Wi mais loolu aussi foog ñu wax ko. mais Pape Sane du yàlla du yeneen. Hmm? Macky Sall président de la République mooy def li nga xamante ni du yoon ñu wax ko ko waxatuma la Khalifa Sall wala Ousmane Sonko te le grand perdant mooy Ousmane Sonko ngeen baal ma leeral loolu. parce que Khalifa li nga xamante ni si moom la doon ut mooy groupe parlementaire fexe ba am su amee groupe parlementaire dina mën a négocier pouvoir pour ñu amnistier ko mu tourner ay Sonko. c'est des ay tuuma la de. ay analyse politique la parce que nous sommes en politique. parce que ay nit bu ñu la wóoloo jox la ne la defaral liste Khalifa Sall mën a taxaw mu ne lii moo tax mu teg Moussa Tine si kaw Cheikh Tidiane Dièye mënta nekk parce que au moins il a travaillé des nuits et des nuits des heures et des heures des jours et des jours. ci coalition Yewwi Askan Wi ak Cheikh Tidiane Dièye gis na sacrifice li nga xamante ne docteur Cheikh Tidiane def na ko ci coalition bi. mais liste bi kañ ngeen ko gis. kay kay kay bu fekkee ne amul lii moo tax. ma tànn Moussa Tine ci kaw Cheikh Tidiane Dièye. mais kañ ngeen xoolee ñu ne mooy Moussa xool ku nekk li nga xamante ni mën nga ko ak ku nekk li nga xamante ni si yaakaar nañu war nga ko indil coalition bi teg ay critères pour tànn. mais investiture fu mu am frustré day am. mais mais mais xam nga tamit. may mën a bisoo may mën a bisoo moom xam naa ni gars yi faa ko quoi lu tax ñu dugal ko. Euh, parce que yàlla faa nañ ko trop. parce que loolu man je du jiitewul kuréel. ban kuréel. Sénégal moom moo topp si Cheikh Tidiane Dièye et elle s'est battue temps yooyu askan wi xeexal nañ la yow pour nga nekk maire déjà waaw à Kër Moussa Nord waaw bien sûr da nga leen ci a remercier ma wax leen nag ma wax leen nag moom conférence des leaders ma wax leen le coordinateur départemental de Taxawu Sénégal ba élection yi jàll il n'a pas bâti campagne avec Yewwi Askan Wi te du ko weddi moom may dégg bu fan bu Kër coordinateur de PASTEF n'a pas bâti campagne waa PUR nañu désisté woon te pourtant ñetti parti yooyu ñoom la ñuy wax ne les partis permanents xaw ma les partis lan ak lan ak lan seen i coordonnateurs départementaux yi nga xamante ne ñoo nekk Kër Massar amul kenn ku si battre campagne si côté Yewwi Askan Wi si élection locale yi mais loolu c'est grave. mais aussi avenir Sénégal bu ñu bokk très très très grave avenir Sénégal bu ñu bokk c'est pas le droit devant taxawu Sénégal aussi c'est pas la même chose. alors Pape Pape Sall type groupe bu ñu gis ci Khalifa Sall est-ce que ça euh, mun nañoo xalaat ni vraiment fu mu toll nii je bëgguma nekk vraiment pessimiste mais euh, Yewwi Askan Wi après les élections ou avant les élections vers l'implosion on peut le dire. surtout que ñenn ñi dem ba di ko traiter de rancunier ñu. type groupe laa gis quoi mais nag il a trahi quand même. mais mais nag c'est c'est on ci partage ces non c'est des réactions mhm. qui étaient tout à fait attendu ah c'est-à-dire il fallait que ñu xaar ko mais néanmoins man dama bëggoon revenir un peu sur ce qui a conduit à ce processus parce que tamit mhm. c'est très facile de jeter l'opprobre sur Khalifa Sall Khalifa Sall mooy kan c'est un homme politique issu de la génération de Senghor ba tey jii c'est-à-dire quelqu'un bi nga xam ne il il a grandi dans le sérail politique moom ci loolu la xam c'est-à-dire il mu. loolu non mais ma ñëw rek ah. non non non non mais. moo tax ma ne la Ousmane Sonko est le seul perdant. Ousmane Sonko a raté une trajectoire politique boo xamante ne. non non vous êtes tous perdants. Ousmane Sonko a raté le grand perdant. non waaw d'accord parce que mën nga ci dëkk yi askan wi. monsieur le maire wuyu ma da nga koy bàyyi mu daane après nga jël réplique donc donc donc c'est simple. cest à kooku boo ko jëlee tey jii c'est-à-dire depuis 1982 xaw ma 1978 bi mu nekkee ci politique ba léegi. il a eu des amitiés. il a eu des gens yi nga xam ne da leen war a consolider. mais kooku boo ñëwee taxaw ne ko almet baa ngi nii taalal mais àll bi yëpp lay taal cest à kooku moom. ci politique lañ nekk ci politique nañ nekk. waaw non non non déedéet mais aussi quelque part quelque part. mooy que yéen coalition bi. c'est-à-dire coalition Askan nañ ko wax tamit. C'est-à-dire, à un certain moment, cette coalition avait l'air d'être une armée mexicaine. cest dire que tout le monde décidait, tout le monde tirait, tout le monde parlait. dafa amoon cacophonie quoi. voilà il pas un leader même su dee on reconnaît à Ousmane Sonko un certain leadership mais de part et d'autre. waaw même bu ñoom ñëpp d' accord nañu que ci Ousmane Sonko mooy kilifa mooy entre guillemets kilifa. mooy leader bi <laughs> mais d' part mais chaque jour nga dégg des yi nga xam ne. bokkul ak li nga xam ne moo doon indi cohésion ci groupe ça da ngay déglu tey ji par exemple tey coalition benn Bokk Yaakaar moom moo jox exemple bi Macky Sall yeneen parti yëpp am na ci ñi nga xam ne li muy doxalee neexu neexu leen mais doo ci dégg benn baat discordante. ah yor na tàngal ak aw yat nag. <laughs> tàngal bi mën na ko seexal ñenn ñi ñeneen ñi mu dóor. mais ñii tamit yor nañu tàngal <laughs> ñii xam nga ñu yor nañu tàngal. Ah. parce que tey jii tàngal bi mooy lan mooy que askanu Sénégal. Mhm. ñoo leen ñaanal. ba pare bénir cette coalition. c'est-à-dire kooku amul tàngal du ko gën. bien sûr c'est-à-dire tey bu décidé woon dafay génn it moom leer na ma nitam ñi mu àndal ñi daañu ko ne waa yow demal mais ñun fii la ñuy des. ossature bee dëgër. ossature bee dëgër donc loolu c'est c'est c'est un ak acquis boobu nag je crois que nag ñoom dañ ko foowee di ko foowee di ko foowee ba tey jii moo nar a moo nar a xëcc moo nar rëcc seen loxo. waaw moo nar a seen loxo. parce que erreur yi ñuy def dafa bëri tamit quoi. waaw waaw waaw mais man. Euh, li ngeen li ngeen di reproché Khalifa Sall Khalifa Ababacar Sall. moi je trouve que am na reproche xam ne quand même euh, peut nit ñi dañ koy def nii rek mais am na yoo xam ne teguñ ko fenn. Mhm. moi je suis d'accord que effectivement le fait que ñu choisir ko pour mu jiite en fait mu jiite ces investitures yi. c'était un très bon choix. parce que effectivement. boo boole woon par exemple président de mouvement yeeg chef de parti en tout cas leader yu Yewwi Askan Wi ne leen kaay leen ñu waxtaan pour am ay investiture peut-être ils vont faire. sept huit mois. en tout cas ñu doon tànn huit mois dinañ a. am consensus moom. <laughs> am non. je rappelle aussi nag que Maimouna Bousso. Maimouna Bousso moom ñu ci kanamu Ndeye Fatou Ndiaye. mais Maimouna Bousso gën a xam que Fatou Ndiaye loolu la je je je la été ministre. je sais je sais. elle a été directrice générale de non loolu xam nañ ko mais <laughs> politique ak descente ak ay combat yu muy mënee moom la ñu bul fàtte ne que Maïmouna Bousso aussi yàgg na ci xeex si opposition bi c'est ça PDS mais pas wàcc ci terrain bi elle était avec le PDS surtout dans le cadre de de Front de résistance Front de résistance nationale moom mm-hmm. ñëpp xam nañ ko si maintenant nga nee ma peut-être que yàggul. Euh, yeewi askan wi pour mériter un post euh, en tout cas euh, investiture. la position qu'elle a en en défaveur de nit ni ku mel ni Cheikh Tidiane Dieye ak madame Blondin d'accord kooku aussi c'est c'est discutable. Mm. mais xam naa ne. am na poste moom ça je le reconnais même man je ne suis pas d'accord par exemple sur le fait que ku mel ni Malick Gakou. Euh, à Guédiawaye ku ku mel ni euh, comment il s'appelle encore là. Ahmed euh, Aïdara di ko di ko jiite. Ah, kooku Ahmed waaye mais si le maire là aussi là aussi là aussi man dama ne woon encore te loolu loolu laa bëggoon wax sax avant c'est que. générosité politique boobu moom manqué au sein de benn Bokk Yaakaar au sein de Yewwi Askan Wi ku ñu fal maire c'est-à-dire ñu am euh, ñu wóol la ba investir la si élection locale yi waroon nga am euh, courage ak générosité ne ba bàyyil ma bàyyi ñeneen ñuy dem. Mhm. mais on a ko que beaucoup de maires xanaa peut-être euh, kii bokk si. moom laaj ko moom est-ce qu'il a été investi. oui j'ai pour les. pour les élections non non non non non voilà mel noonu man je trouve que loolu la gars waroon waroon adopté. Mhm. et si loolu tax ma ne de dehors de Ousmane Sonko mi nga xam ne mooy leader reconnu e ça c'est c'est c'est c'est de fait parce que ñu fa nekk yëpp moo si dem élection présidentielle am des résultats dem aux élections législatives yi passé def un euh, résultat ñu si des yëpp ils sont inconnus du bataillon mm-hmm. ak ñu si bëri si ñoom tey bu ñu nekkee maire nañ ko gërëmee Ousmane Sonko ak euh, Barthélémy Dias parce que mm-hmm. c'est surtout ici à Dakar mm-hmm. ñooñu parce que c'est la Sonkomania moo leen yóbbaale mais am na si ñoo xam ne bu ñu demoon ñoom rek si euh, si si si élection locale yi du ñu am dara. donc je crois que pour les élections législatives aussi ñoom seen bopp war ñu kon ne di euh, di di di di di di di di di exposer seen frustration. Mhm. au point de compromettre chance coalition bi nga xam ne te moo gis nga tey. fu mu nekk nii Benno Bokk Yaakaar mu ngi tàccu di reetaan. ñu ah, nekk fu mu nekk nii. <laughs> affaire affaire sabar sabar baa ngi. sabar euh, je pense que ay nit bu ñuy ànd. foog ñuy wax waxante dëgg. waaw lool loolu lool loolu moom nangu naa ko. ay erreur bu amee. foog ñu taxaw ne erreur yi am na. en mais investiture yi wax dëgg yàlla dafa am erreur même au niveau du des des départements. man man loolu moom. au niveau des départements dafa am erreur. mais nag ñi nga xamante ne ñoo nekk si kaw bu ñu defee erreur ñun dañ leen koy wax.